Covid 19 am na yeneen yoo xamante ne nii gestion la boo xamante ne nii ñeel public te euh, amal njëriñ askan wi yëpp bu ci nekk war nañ ko xool bu baax a baax surtout yi nga xam ne nii jot nañoo def objet de rapport ba ñu jéem ci ba ñu euh, <coughs> tudd ci turu ñenn ñi ci gestion bi nga xam ne nii moom lañ ci amaloon euh, force fond Covid li ci dem ci xaalis li ci dem ci alal dafa bëri ay milliards la te. taxul euh, ñu maintenir wala sax ñu contenir li nga xam ne nii euh, mooy euh, feebar bi nga xam ne moom la amoon ñi mu ñi mu doon rey mi ngi leen doon rey li mu doon li ñu li doon am ci ay cas mi ngi doon gën a yokk mais taxul ñu jël ay matuwaay yoo xamante ne nii dina permettre à que ku ci nekk mën a am li nga xam ne nii loolu mooy li li li war ci yow gisoon nañu ne que ci Covid bi malgré fonds yi nga xam ne def nañ ko ci. plateau plateau médical bu Sénégal dafa nekkoon plateau boo xamante wala sax daf ko nekk ba léegi ndax ba léegi nit ñaa ngi dem hôpital di am ay jafe-jafe ci faju di am ay jafe-jafe ci ci ci ci ci ci service yi nga xam ne ni moom lañ leen di rendre donc mu nekk loo xamante ne ni xaalis boobu bi mu ñëwee waroon naa combler yenn gab yi wala sax waroon na bu jaaroon fi mu waroon a fi mu waroon a jaar ñi ci ëpp dinañ ci mën a gis seen bopp bu baax a baax ndax ba léegi Covid ak léegi dafa ni jànguñu ci dara ndax feebar la boo xamante ni daf ñoo bett te bu ñu bettee euh, euh, liñ ci am ci ay yàqu-yàqu bëri na loolu nag yu gis nga genre catastrophe yu mel noonu bu amee dafa am loo ciy jàng liñ ciy jàng mooy jéem a waajal sa bopp ci leneen loo xamante ne xëy na peut-être mën naa ñëw waajal bopp boobu nag bokk na ci li nga xam ne moo nekkoon ci alal ñu def ko ci mu waroon a jaar fi mu war a jaar te jaaru fa te ñu gis ci ay rapport yoo xamante ne ni gis nañ fi ay ay gis nañ fi ay euh, nuñ koy waxatee euh, ay bomb gaz yoo xamante ne nii dañ ko waroon a jënd surfacturation yi nga xam ne moom lañ ci doon def euh, masque gars yi masque yi yi nga xam ne moom lañ doon jaay ay masque yoo xamante ne waroon a dikkee cent franc ñu koy jaay mu mu mu muy dikkee nguur Sénégal lu tolloog mille franc wala téeméer yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xamante ne jot na cee am gis nañ ci nag ñu bëri ñoo xamante ne nii ci yenn xibaar yi nga xam ne amoon nañ ko ci Covid bi la ñu jaaree nekk ay milliardaire bëri na ci de am na ñoo xamante ni ci Covid lañ jaaree nekk ay milliardaire ñeneen ñi ci Covid lañ jaaree nekk ay millionnaire ci lan parce que am na alal goo xamante ne ni bëri woon na buñ ci éjecté woon mais malheureusement jaarul fi nga xam ne ni foofu la waroon jaar mooy dugg ci li nga xam ne ni mooy euh, ci ñeel suñu ñeel euh, santé publique ñu mën a defaraat. wala sax mën a joxaat doole wala suuf li nga xam ne nii mooy plateau médical bu Sénégal mais malheureusement tey la suñu hôpitaux yi gën a sonn tey la suñu hôpitaux yi gën a manqué ay garab tey la suñu hôpitaux yi gën a manqué li nga xam ne nii mooy assistance ak suivi bi nga xam ne moom la war ci malade yi nga xam ne ñoo fay dem donc c'est très normal bu fekkee ne am na ci ñoo xamante ne nii euh, war nañoo dem leerale ci ñu dem leeral et que sénégalais aussi tamit xam parce que dañoo nekk ci dëkk boo xamante ne nii euh, régime bi ñu nekk. régime la boo xamante ne ni euh, ku ci nekk am nga droit saytu xool li nga xam ne moom la ñu bokk ñun ñëpp fiñ ko jaarale fiñ ko dugal ak ci kan la bénéficier wu waratuñ nekk dëkk ci waratuñ nekk ci dëkk boo xamante ne nii alal bi dañ koy joxe am benn parti boo xamante nii moo koy récupérer am ci euh, enrichir boppam ñeneen ñi nekk di dund ci ndóol loolu mënatul nekk te loolu dafay répondre ci li nga xam ne nii mooy euh, objectif wala sax mooy li nga xam ne loolu la euh, président bu bees bi euh, jaay sénégalais yi askan wi mooy rupture total mais ci rupture boobu mu amaale transparence ak redevance ci mbooleem loo xamante ne ni gestion publique la. milliards yooyu Birahim comme ni ko Cheikh waxee yoon la ñu